revue de la presse, de la presse sur Sud FM. La revue de la écoutez la différence. dal leen ak jàmm coowal Ousmane Sonko wàlla mbas mi ak yeneen i xibaar moo gën a fës ci yéen kaay génn tey jii nii Sud Quotidien di fësal assemblée nationale nag dañoo bëgg a jébbal kii di Ousmane Sonko procureur de la république.

loolu nag ni nga xam ne kat la ko procureur bi bëgg su ko defee rek mu mën a gindi askan wi ci liñ koy tuumaal assemblée nationale jébbal Ousmane Sonko procureur de la république loolu moo gën a fës ci yéenekaay bii di Rewmi Quotidien ak tamit Vox Populi li ni mel tam la laas daal fësal ci xëtt mu njëkk suy naataangooy nekk les économes dañoo def taxaw seetlu TIF yi nag la tëddee woon démb ci assemblée nationale nee nañ bureau bi nag dafa voté ngir rek ñu tekki malaanu kiirlaay kii di Ousmane Sonko waaye nag fukki nit ak juróom ñoo ne woon waaw ñaar na déedéet ñu jàpp ne kat kii di Cheikh Abdou Mbacke Bara Dolly ak maam Albis def na seen kéemtalaay kàttan waaye nag loolu mujjul antu loolu nag les échos ñoo ko ci yokk l'observateur di fasal ne fi toll nii nag on nañ commission des lois bi mu war a dajee nag fukki fan ak juróom ci weeru février bi ñu nekk suñ ci paree lépp lu ci wàllu plénière bi commission ad hoc boobu sax fukki député ak benn ñoo ciy nekk juróom-ñett yi dañuy bokk ci majorité présidentielle bi ñaari nekk ci kujje politique yi kenn kenn ak moom du far fenn yéeni kay Abdoulaye Tribune di fësal kaaraange gi amoon démb ci Ndakaar bi ñu doon toppatoo mbirum Ousmane Sonko nee na kat foo romb nag gis fa takk der yi ñu gën a fës nag ci cité kër góor gi waaye tamit ci buntu assemblée nationale ak tamit gox yi nga xam ne yépp xët-xët war na faa mun a am yéen kaay bi di laas defasal ne ñeent fukki nit ak benn yi jàppoon nag ñaar fukk ak benn yi rek fi mu toll nii la ñu bàyyi ñaar fukki ne fi mu toll nii caabi da leen féete ginnaaw ñu waroon a jaamarlu ak doyen ko ci la toppee loolu bokk na ak tamit yàq yi fu jàmbur waaye tamit dajaloo boo xam ne dañ koy tere mbirum Ousmane Sonko ñu bëri jàpp ne wàllu politique moo ko lal moo tax ñu jóg di saytu ak yelleefu doomu aadama nag ci ay kàddu ngir rek jàpp ne kat fi mu toll nii démocratie sénégalaise moom dañ koo salfaañe ci waxtaan woo xam ne seqal ko suñu naataangoo yi di laas kii jiite Afrikajom Center di Alioune Tine moom càmbar bu baax a baax li nga xam ne kat moo jëm ci gàllankoor démocratie sénégalaise jëm nag ci mbirum Ousmane Sonko yéeni kat bi l'observateur dafa dellusiwaat ci coow li am fële ci hôpital militaire bu Ouakam ak tamit kii di benn sous-officier boo xam ne kat dañ koy tuumaal mbir moo xam ne kat dafa doy waar lool moom mu ngi nekk nag ci service hôpital militaire bu Ouakam dañ koy tuumaal ka doon def ay jëf ju ñaaw jëm nag ci wàllu garab yi waaye tamit ci wàllu matériel hémodialyse ñu ko jàpp nag moo nekk section de recherche l'observateur di fësal li ni mel def na ko at laata nag ministère de la santé et de l'action sociale nag di amal ab liñ bët jëmale ko ci li nga xam ne kat mooy wàllu produit hémodialyse ci lañ ko nag daal di teg loxo li ni mel ni libération fësal ci xëta mu njëkk ci wàllu mbas mi vox populi di fësal ne Sénégal soreetul nag fanweeri junni ak nit ñoo xam ne am nañu wopp si di coronavirus ndaxte kat démb sax daanaka ñetti téeméer yi nag amoon ne ñetti téeméer fukki nit ak ñaar ñoo ñàkk seen bakkan boo ko wàññee nag bay fi dooree ba léegi juróom-ñaar téeméer nit ak ñaar fukk ak ñeent ñoo ñàkk seen bakkan bay fi dooree ba léegi fii ci biir Sénégal ci wàllu tàggal yaram yéeni kab di sax dafa def taxaw seetlu ci mbirum ballon d'or africain ci diggante Mohamed Salah ak tamit Sadio Mané suñu naataangooy di ne fi mu toll nii kat Mohamed ne moo nekkoon ballon d'or ci atum 2019 boo defoon ndànk dina am ay jafe-jafe ngir rek téewaat ballon d'or ci atum boo xam Salah rek la ñuy faral di gën a gis mu ci génne équipe bi di Liverpool moom Mohamed Salah sax fi mu toll ni mu ngi xëccoowaat nag ngir am ñetteelu raaya boo xam ne kat jëm ci wàllu football kat bi gën a ràññeeku u ñoom qualifié nañ ci wàllu final bi ak tamit ci wàllu CAN bi suñu naataangoo yi nekk ci stade di fësal ne ñaari équipe nag démb lañu am seen qualification Sénégal dafa gagné gagné bu métti Guinée Bissau ñeenti bal ci dara ci waxtu sax ñaari entraîneurs yi ki di Malick Daf buy tàggat Sénégal yëkkati ay kaddu nee na kat final dañ koy joué waaye tamit dañ koy gagné Alpha Oumar Baldé bu Mali moom nee kat alhamdulilah ginnaaw bi nga xam ne kat Sénégal la am final. Ligue africaine des champions tunisien bi Espérance bu Tunis nag war a dalal suba Sénégal yi nekk Teungueth FC lu nag jëm ci. première journée phase de poule Ligue africaine des champions Teungueth nag àllarba ba léegi ña nga fële ca Tunis démb sax solo bi nga xam ne match boobu daal dina koy am ci wàllu Coupe CAF Jaraaf de Dakar moom mu nga ca Zimbabwe war a football dimanche digganteem ak Platinium di match boo xam ne kat bu am solo la jëm nag ci wàllu phase aller barrage l'Observateur di fësal ne Mali daaf du ca teew moo tax sax ñu toftal ci moom di Moussa Diatta ak Pape Siré Dia ñoom ñoo war a fas yéene coach équipe bi mbokk yi jaa ngeen jëf ba beneen yoon incha allahu rabbi. la revue de la presse la la presse La revue de la presse sur Sud FM. Écoutez la différence. Bonjour à tous. L'affaire Ousmane Sonko, la Covid-19 et d'autres sujets sont développés dans les journaux ce vendredi. Niass cautionne Serigne Bassirou Gueye, c'est le titre de Sud Quotidien. Selon mon confrère, le procureur qui entend traduire à la barre le député Ousmane Sonko aux fins de poursuites dans une affaire de mœurs a gagné hier le premier round de sa croisade contre le président du parti PASTEF. Pour cause, l'Assemblée nationale présidée par Moustapha Niass a déclenché dans la matinée d'hier la procédure de levée de l'Assemblée a le premier jalon de la caution qu'elle accorde au maître des poursuites, le procureur de la République Serigne Bassirou Gueye. Ajoute mon confrère, l'Assemblée nationale va livrer Ousmane Sonko, titre Rewmi Le bureau et les présidents balisent la voie, écrivent nos confrères de Vox Populi. Le bureau de l'Assemblée nationale donne son cutus, renchérit l'As. Nos confrères du quotidien Les Échos s'arrêtent sur les minutes de la mise à mort politique de Ousmane Sonko. Le bureau a voté la poursuite du processus de levée de l'immunité parlementaire de Sonko par 15 et 2 non. Cheikh Abdou Mbaké Baradoli et Mme Albi se sont opposés sans succès, ajoute nos confrères. L'observateur révèle la procédure enclenchée. Il s'en est suivi une réunion de la conférence des présidents qui a transmis le dossier de Ousmane Sonko à la commission des lois de la décentralisation du travail et des droits humains qui va se réunir le lundi février pour la mise sur pied de la commission ad hoc le mercredi février pour la ratification en plénière recruter deux députés de l'opposition et un député non inscrit. Le quotidien La Tribune s'arrête sur le dispositif sécuritaire avec le centre-ville qui a été quadrillé par les forces de sécurité. Toujours à propos de l'affaire Ousmane Sonko, là se révèle que parmi les 41 manifestants qui ont été déférés au parquet, les 21 ont été libérés. Les 20 autres feront face aux doyens des juges pour association de malfaiteurs, incendie criminel, Cette affaire Ousmane Sonko, assimilée à un complot politique, a poussé les défenseurs des droits de l'homme à alerter sur les mots qui gangrènent la démocratie sénégalaise. Dans une interview accordée à nos confrères du quotidien LAS, le fondateur d'Africa, Diom Santé, à l'UNTIN, décrypte le fonctionnement de cette démocratie souvent bafouée au Sénégal. Le quotidien L'Observateur revient sur le scandale qui secoue l'hôpital militaire de Ouakam. Selon nos confrères, le dossier est d'autant plus gênant qu'il implique un sous-officier en service à l'hôpital militaire de Ouakam. Il est accusé d'alimenter un réseau de trafic de médicaments et de matériel de dialyse. Les présumées pratiques délictuelles du militaire qui auraient impacté négativement sur la disponibilité des médicaments ont été dévoilées par les ce qui lui a permis de tenir son business pendant plus d'une année. Seulement, le sous-officier a été perdu durant la dernière semaine du mois d'octobre quand les responsables du ministère de la Santé et de l'Action sociale ont soupçonné un trafic de produits d'hémodialyse. Selon nos confrères de Libération, le sous-officier a été piégé et intercepté en pleine livraison par les éléments de la section de recherche déguisés en manutentionnaire. covid Vox Populi révèle que sous le Sénégal va franchir la barre symbolique des 30 54 de la transmission communautaire et ce qui porte à le nombre de décès depuis le début de la pandémie. En sport, le quotidien sportif Stade s'arrête sur la course au Ballon d'Or entre Sadio Mané et Mohamed Salah, le pharaon en avance sur le lion, c'est le titre du journal. Ballon d'Or africain en Sadio Mané risque d'avoir des difficultés pour conserver son titre en Moins en vue dans un Liverpool en baisse de régime, l'attaquant sénégalais est devancé au niveau des statistiques par Mohamed Salah. L'attaquant égyptien convoite une troisième distinction de meilleur footballeur africain de l'année. UFOA U17, Sénégal et Mali se qualifient en finale et à la canne de la catégorie, selon nos confrères du quotidien sportif Stade, les deux équipes ont validé leur ticket hier. Le Sénégal a largement battu la Guinée-Bissau à 0, alors que le Mali a dominé la Mauritanie 5 à 1, ajoute nos confrères Selon Alpha Oumar Diallo du Mali, ils ont la chance de jouer le Sénégal. Ligue africaine des champions, les Tunisiens de l'Espérance accueillent les Sénégalais de Teungueth FC samedi 13 février pour le compte de la première journée des phases de poule. Selon Stade, arrivés mercredi à Tunis, les joueurs de Teungueth FC ont effectué hier leur premier galop d'entraînement au terrain annexe du stade olympique d'Agadez, une occasion pour le coach Youssouf Dabo de contre l'Espérance de Tunis. Et puis en Coupe CAF, le Gérard de Dakar est au Zimbabwe depuis quelques jours. Les Verts Blancs vont jouer contre Platinum le dimanche, match comptant pour la phase aller des barrages. Selon l'observateur privé de leur coach Malik c'est aux adjoints Moussa Diatta et Pape de faire le job. Merci, c'était tout. À vos journaux et bonne lecture à tous. La revue de la presse sur Sud FM. Écoutez la différence.